mbokk jullit yi mbokk taaliba yi quatorzième édition sant Serigne Touba ci njaareem tàmbalewaat ñu war ko amal ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mai mu doon ca HLM grand Diourbel mbokk yi mu doon programme boo xam ne sant sunu borom la jàng aw xuraan yëkkati xasaayit sant Serigne Touba jaar ci yoonu sunna mbokk yi mu nekk ci digalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kullu murit Serigne Abbas Mbacké xalifa maam Thierno Birahim Mbacké Serigne Moustapha Absa xalifa Serigne Modou Awa Balla Mbacké Serigne maam Thierno Mbacké xalifa Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké Serigne Modou Maxtaan Mbacké sunu waajur tey ak ëllëg Serigne Mahfous Mbacké ibn Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké ak bépp njabootu Cheikh Awa Balla mu doon ci kilifteefu ak teewaayu Serigne Axma Mbacke Bambey sëriñ Mahfous Makhtar Mbacke gaynde borom daaru ak bépp daayira bu fédération sëriñ Mahfous maxtar Mbacke di sëb ci sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ak bépp taalibe bu sëriñ Touba ñoo leen di yëgal quatorzième édition mu di cant gu nuy baaxoo at mu jot ren jii muy amati ca njaareem ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ci weeru mai ci HLM Grand Diourbel programme bi àllarba ñaari fan ci weeru mai lañ koy tàmbale borom daaru alxemes ñetti fan ci weeru mai mu nekk bëccëgu Mouride ak guddik maam Cheikh Ibrahima Fall ajjuma ñeenti fan ci weeru mai flambeau par les soldats de Serigne Mahfous Mbacké samedi ba juróomi fan ci weeru mai ci la ñuy jàng aw xuraan ginnaaw bi ñu jublu ci li nga xamante ni moo di cérémonie officielle ñu def conférence bi ci dund Seydina Mohamed def ay zik mu doon quatorzième édition cant gunu baaxoo at mu jot mbokk yi bu leen ko fàtte ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ci weeru mai ca HLM Grand Diourbel kat moo ko taxawal ñu ne sët bi nga xam ne topp na ci tànki nga xamante ni sunna rek moo ko tax a jóg moom la ñuy fàttalikoo maamam mu di sëriñ Mahfous Makhtar Mbacké jàngalekat bi sang bi di ko tedd di ko baax gayndek boroom daaru ñu ciy woo jullit yépp di ci woo taalibe yëpp mbokk ñu bañ ko fàtte mu doon ñaari fan ñetti fan ñeenti fan ba juróomi fan ci weeru mai muy am ci HLM Grand Diourbel mbokk yi lii lépp ngir sant sëriñ Touba santale ko sunu borom